hors du dëkk bi ils sont là au nombre de peut-être une cinquantaine pour faire ça voilà je suis en direct 16 maintenant c'est le le problème de de de de Atepa ak ak Abindour ils ont activé encore une fois des étudiants activés des tailleurs de pierre qui sont là en train de de vouloir faire du boucan qui sous ma place. Je veux que tout Sénégal regarde ça. À chaque fois depuis dix ans je suis en train de vivre ça. J'ai rien fait boo xamante ni dérangé naa fi kenn sama place laa nekk ba léegi jegewuma leen donc ils sont là en train de faire du n'importe quoi voilà. Voilà, c'est ça les tailleurs de pierre. Ils sont en train de fuir parce que j'ai appelé la police qui est là-bas. Ils sont en train de fuir. à faire le message. Vous pouvez trouver, mais sachez que légalement dans ce pays, jamais, ma chère, à nous qui donnent aux gens là Des gens qui n'ont même pas d'éthique, qui viennent ici tous les jours pour yàq place jàmbur bés bu ils sont en à chaque fois c'est du n'importe quoi parce que ont donné des pauvres gens comme ça jox leen 10 000 francs pour qu'ils viennent m'attaquer place bi yëpp mu ngi nii may jaar di jox dara suma gardien ñu ñëw bëgg attaquer place bi comme vous ma nekk yaay comme vous et je sais que am naa doom je sais que mun naa la jur ñu jël leen di leen embarquer ci des histoires yoo xamante ne xamu leen ko bi may am place bi vous étiez au lycée ça fait dix ans vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ñu jël di leen manipuler comme il veut xamu leen nag li xew te yéen a ngi dugal seeni ay parents ci loo xamante ni bu suba di ngeen dugg ci mbir moo xamante ni suba dingeen ngeen seeni ay waajur suba di ngeen lor seen ay waajur parce que bi may am place bi yéen ñëpp yéen a ngi nekk ci école yi di jàng bi ma koy am dugg leen université qu'est-ce que ça a à avec l'université lan la place bi jotee ak université les pauvres étudiants qui sont tout le temps là di def ay affaires di wax di dugg ci loo xamante ni maîtriser wu à chaque fois c'est comme ça c'est Pierre Goudiaby qui est là pour c'est parce que il est faible d'esprit tekkiwul dara ak barki démb femme yi la nekk à côté Tange bu ma leen waxee dëgg dañu déplacé dem beru parce que xam nañ ci lii ñu leen dugal du dëgg du yoon xam nañ lii ñu leen dugal sàkk ñu may indil ay problème nii lañu ñu dëkkee ak man fukki at la dëkk ak man te ñii nga fiy gis amul kenn ku fi dëkk ci koñ bi amul kenn ku fi dëkk ci quartier bi lii lay dundee bés bu yàlla sax Vivo Énergie moom moom kër gi daaw dafay ancien ministre moo fi dëkk ñu jël place bi loué ko KFC KFC du fait que seen concurrent la ñu ne naa fi jóge parce que arrangé tuma place bi arrangé wu moo tax ñu ne naa fi jóge ils ont que 19 parking ci seen place fële ngeen gis au fond c'est les tailleurs de pierre qui sont là bindu leen ne leen jóge leen fi ils sont à l'aise ils sont partis